xereñte fi nga xam ni mi ngi ci yoonal gi ñu yoonal koor ñu gisoon ne kon borom bi tabaraka wa taala wax na ni ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun naasi saadi waxoon ca laallakum tattaqun ja mu ne sharana lakum alsiyam litaqumu bitaqwa allahi allati biha najaa wal falaax was saada yoonal na lu ñeel leen li nga xam ni mooy koor ngir ngeen taxawe taqwa mu ne taqwa nag texe moo ca ne ak la nga xam ni mooy mucc ak la nga xam ni mooy teddange waxoon na ni nii ni bokk na ci ponk maanaam piliye pilier wu taqwa yi gën a màgg koor ci boppam dafay jëme nit ki ci taqwa ci bépp anam ndax dafa làmboo yar bakkan bi ci muñ ci yi nga xam ni ay bànneex la yu mu xemmem yu mu bëgg te aajowoo ko yaramam soxla ko yaramam yittewoo ko waaye nag jamono jooju mu bàyyiloo ko bakkanam te bakkanam ci loola kon gis nga téye bi ngay téye sa bakkan ci loo xam ni lu dagan la lu sa bakkan bëgg sa yaram soxla ko mu doon lu dagan waaye nag ci ay waxtu ak ay bés yu ñu xam loola kon bu fekkee nit ke sóobu na ko ci sóobuwaay bu rafet ci waajal ci boppam teg ko fam ko war a teg ci basiira ma ngoog jublu ca lam ca war jublu te muy tarju thawaab allah wa taxaafu iqaaba ci jubluwaay ci yéene bu baax kooku ca tawfiqu borom bi tabaraka wa taala day doon koo xam ni am na lu mu dolleekoo ci koor gi am na lu mu yokkoo ci koor gi na lu mu jëri ci koor gi loo xam ni lu spirituel la mangoog ci lu laal ruuxam defaru goo xam ni ruux da ko cay defaroo jubbantiku goo xam ni ruux da ci jubbantikoo yaru goo xam ni ruux da cay yaroo ci biir koor geewgee ba bu génnee ci koor gi day mën a taxawe taqwaa ca anam ga mu gën a mate ci def ak ci bàyyi ki nga xam ne mooy al allaama abdurahman bun nasirin saadi woy di wax ba léegi ne niki noonu it koor yad'u ila rahmatil faqir day woo nit ki jëme ko ci mu am yërmande ci ki nga xam nii ku ñàkk la ndax bëccëg yooyu ngay woor lañ cay yëg ma ngoog nga gis ni kat néew ji doole ji amaana bés yu gën a bari yi wala waxtu yi gën a bari yi lu mel ni ñoom danañ koy yëg loola da ngay gis ne xol ba da cay nooye ñewent day dal di tàbbi ci xol ba yërmande day dal di tàbbi ci xol ba mu ne fa inna al lillah wal ixsaan li ibadillah huwa jimaacu taqwa wa kilahuma mawjudun maanaahu fi siyaam waaw si saad yi nag tënke wax ji ci kàddu goo xamante ni nii kàddu gu ama am solo la bu ñu amoon daa goo xam ni maanaam encre boo xam ne wurus la muy or des na ko binde mu ne fa inna al ixlaas lillah kon gis nga ma ngi lay delloo ci jubluwaay ba ba léegi ni nga war a waajale koor ci ixlaas loolu mbokki jullit yi liggéey bu rëy la liggéey bu rëy la doy na liggéey ixlaas fexe ba waajal sa bopp ci ikhlas nga xam ni da ngay koy tàbbee ci biir koor gi tàbbee ci biir koor gi ci ikhlas ci niyya boo xamante ni xooli sax niya boo xam ne xasana ndax innama al amalu bin niyyat loola bu ko xatte mu ne kon gis nga ikhlas boobee nga ànd ak moom wal ihsan li ibadillah ànd ak it di def mbaax ak rafetal jëme ci jaam yi mu ne loolu de huwa jimaau taqwa mooy li nga xam ni moo dajale ak taqwa loola mooy la nga xam ne taqwa ca la dajaloo ndax maanaa ya la maanaa la yoo xam ni dafa làmboo taqwa dale ca bopp ba ba ca njeextal ga maanaam ci tàmbale gi ci njëmbat gi ci tabax ci yéene ji ba ca la nga xam ne mooy samaraat ya muy meññeenteef ya right loolu dalay wan ni muxlis koo xam ni diina ñor na ko dëgg-dëgg day doon koo xam ni naafi an li ibadillah day amal njëriñ jaam inni jaailun fil ardi xalifa esprit boobu nga xam ni ma nga dalee ca sunu maam aadama raaytum diine di ci taxaw ki nga xam ni mi ngi ci ixlaas dëgg mënta manqué waale lale raaytum mënta réere lale lale du ko rëcc ki ne ci ixlaas dëgg nga motax nasi sadi saadi boole leen ñoom ñaar gis nga boole len ñom ñaar motax mu ne wakilahuma ñom ñaar ñep mawjudun ma'nahu fi siyam seenuk ma'na mi ngi ci bir koor esprit wu ikhlas waye esprit wu tam al ihsan li ibadillah rafetal jëm ci jaam yi rafetal nag jëm ci jaam yi dafa yaatu mën na doon lu matériel kon mën na doon lu spirituel comme ni ko boroom xam-xam yi di taxawee yàgg naa leen wax ne jikko waroom xam-xam yi ak ndongo xam-xam yi jikko ju màgg la waaye nag mënta doon neneen lu dul noonu ndax al ulama warasatul anbiya hmm? al ulama warasatul anbiya wirasa gi ndono gi moo tax ñoom aka ñoo war a xam seen bopp dëgg right ndax ñoom lañuy def ca lañu ne di ca xëy suba ba ngoon njëriñu xeet wi la njëriñal lislaam la njëriñu xeet wi la njëriñal lislaam yi fexe ba nit ñi xam li leen war yittewoo jàngal nit ñi seen faratay jëmm ba pare it yamuñu ca de waaye la nga xam ni mooy farata ji ñépp bokk ñoom ñu volontaire ñoom ñu volontaire taxawe ko ba mu wàcc ñeneen ñi te pourtant loolu ñépp a ko bokk loolu mooy fardu kifaaya fardu kifaaya ñépp a ko bokk right fardu kifaaya ma ida qaama bihi al baad saqata an il baaqin mooy li nga xam ni su ko ñenn taxawee mu wàcc ñeneen ñi kon loolu lu muy tekki mooy bu ko kenn taxawewul ñéppay bokkandoo toor bi ñéppay bokkandoo lor bi ñéppay bokkandoo daan yi ñéppay bokkandoo yeddaange gi waaye am ñu jóg ñoom taxawe ko fekk ci mu wàcc ñeneen ba pare loolu aspect la beneen aspect bi mooy far ay ayni faratay jëmm nga xam ni ku ne yaa koy taxaweel sa bopp loola loo ca bëgg a xam da delluwaat ci ñoom boroom xam-xam subhanallah kon xoolal taxawaay bu kawe bi kon al ihsaan ila xalq mën na nekk ci ci bunt boobu doon lu spirituel gis nga mën na doon it loo xam ni lu matériel la comme ci yeneen anamu dépenser nafaqaat yi ci am-am ci mën-mën gis nga ak yu demee noonu mais ala kulli xaal ala kulli xaal ñaar la yoo xam ne yuy ànd la al ikhlas lillah wal ihsan li ibadillah moo tax boo xoolee cheikh abdurahman bu nasir ne saadi faqih la faqih gis nga ni mu ràbbee baat yi nim ko tënkee nim mu leen boolee ma ngoog ngir nga mën a jot maanaa wax ci al ixlaasu lillah wal ixsaan li ibadillah te loolu yëpp nag da nga koy fekk ci biir koor day doon fursa bu munaasib nit ki mën a taxawe loolee da nga fàtte as sawmu lii wa ana ajzi bi xoolal koor ni mu doonee loo xamante nii rek dofis dafa war a doon lu tegu ci ixlaas الصوم لي اذا صم لله كن ورا المغير كان غير الله عز وجل والله المستعان داني دال دي تك فوفو سونو بارام نيان بوروم بي تبارك وتعالى مو ديفال نو توفيق ديفال لينكو ديفال نو تيسير ديفال لينكو ديفال نو عافيه ديفال لينكو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته